balaa beneen téléspectateur di dugg ñu koy jox xaalis. <laughs> alors Oustaz kii nag moom dafa ne. moom ah. dafa def lépp. Euh, ci ci jabaram cest à dafay toppatoo jabaram bu baax. mais jabaram moom mënut fexe ba dab li nga xamante ne moom mooy bànneexam. dem na ba nga xamante ne ci famille bi du ci wax ak ñu bari ndax jabaram muy laajte nag oustaz moom ban conseil nga koy jox. am na ñu dul doyal. xanaa mu bàyyi ko seeti keneen. ah, ah? dafa bari ñu am jabar yu réew. Ah. te gis nga pap yonent bi dañu woon ci adina bayiwuma fi lu gëna metti tak jabar mu lay mbugal te mëno ko fassé dëgg la de amna goor yu souffrir en silence hein. c'est vrai que tout le temps on parle des femmes euh, parce qu'elles sont bien défendues mais il y a man des nak, hommes qui souffrent man nak, en pape, silence am ci ay goor yo xam man nak pap ko ci goor ñeppay waxtu dox di waxtu rek jugur jugur jugur jugur jugur jugur jugur jugur te kenn du wax man nak pap daf may yéem torop mm, mm. naka nga mëna nekké goor yar yi bokul oustaz ak fi jamono tollu jikko yi bokul xale yi mujjee juddu ñoo gën a féroce ñoo gën a rafet. ñooy xale yu juddu ci ginnaaw mbay. kii suñu mbay xamuñu mbay mais koo ci wax rek mbay la gëm. rafet nañu silwise nañu yiw nañu. te danoo toog ci seeni penku ndey. mais pap xale yu jigéen yi nii ñu baree ci senegal gii. Mm, nga mën a topp ci benn jigéen dong mu lay yóbbu yow mal xiyaam. ñoom day kuréel te néewoo ko fa ñukk seeti moroomam. ah as gor ah man de kuy bëgg a dee weexu nag. mais pap man dinañ ma limal vingt cinq sëy. am <laughs> sama 36. pap yàlla daf ni laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaaha yàlla nee na man mi leen bind mën leen a yan lu ngeen àttanul sax ma leen lu ngeen àttanul wallaahi pour quoi jigéen war laa teg fitna yow pour pourquoi ça sa àdduna nar a yàqu nga topp ci benn yax di seeñu nar cee daw safaak marwa mu fatt la yam la fu la yàlla yëggul nga bàyyi ñépp topp ko ba dereetu xol deret sax deseetoo ko. yenn saa yi daa ma yax yu am yuq nag. xam nga yuq yooyu ne ci yax yi. ça dépend aussi am na ñoo xam ne doo leen mën a bàyyi. <laughs> man daal Pape loolu chaque jour dama ciy xalaat. dëgg la de. jigéen ju lay teg fitna mayu la jàmm amoo amoo jàmm. Mm. am nga xaalis. Mm. am nga lepp mais amo jamm parce que sa jabar mayu la jàmm. bu ragal dara bu ragal sax nga wër né da ngay nek ak mom sa adina di gëna yaq lu ko fi jar. dara jaru ko fi. pap fi bato dem bato costé. eh way Titanic. kula mayul jamm né ko na talal ba caaka njaay. gaalu galu nga indi moromam tek bim ku guna. Gurdu, gurdu du góor du tënji. woy Dedet. du jàpp idda. di tak mardi. dina la do midi ak te do gis <laughs> fase lundi. Hmm. tak jabar mardi. Hmm. lundi ci ngone fase. dama rek loxo bi. <laughs> mardi nga tak jabar. deug la de deug la de. lu fi jar souffrir. wallahi mbëggeel rek nak takat dina la wax ben secret pap nga xam ko. mbégee la est-ce que xam nga ni jigen ñi seen dara manki wul. Hmm. nga xam ni dañuy am bon. am bon lan. ku len di togal ah bon. bon parce que xalé yi lenen lañ tuddé bon. dafa am boon ak bon. jigéen ñi am bon. ah bon mais bon leneen lay teg bu leen di toggal. suba kaani bon. est-ce que xam nga ni pap jigéen ñi gën a réew ci seen néegu sëy mooy jigéen ñi nga xam ni seen dara mànkewul ah. am nañ ba am ku leen di tëyal xale ah, seen xaalis weer wu dee day mat hmm. seen dépense day mat fóotuñu yettuñu goruñu togguñu mais ñooñu ñoo la gën a mën a teg stress boo xam ni kii wut 2000 yu mu dépensé sax du la ko teg. dëgg la ñooñu ñoo lay may jàmm total. Mm-hmm. ñi seen dara matul. Mm-hmm. ñooñu ñooy may seen jëkkër yi jàmm ju mat sëkk. Mm-hmm. ñi seen lépp mat nag alaaji pap ñooy toog ci seen bakkan yi fatt seen jëkkër yi ne duñu leen may jàmm. waaw mais après tam ça dépend ci réew bi jabar ju réew ci biir nekk dafa neex. xam nga reewantu bajjantu nga xëcc mer xam nga xaw la tàpp tuuti yooyu reewan reewan reewande yooyu neex na <laughs> man bëgg naa yooyu xeetu reewande kooku daal Kia <laughs> mais réewum ndof <laughs> li ma koy dénk mooy lu ko yàlla tegul mm-hmm. bu mu nangu nit teg ko ko mm-hmm. rawatina jigéen insha allah jigéen ju la mënta teg sa palaas xam yow yaay kan xam ni sëy bi jaamu yàlla la. ànd ak yow ci ànd gor ak nawle. ne ko na tàllal ba risaatoo. waaw ah, waaw mel ni Ayda Njaay ak Ayda Njaay ak Xadi euh, rek ay ay ay maam jaaro bu solo ñu. bato dem bato costé. ak madame Jaxate yaayu Sofi Jaxate. fase nga ñeenti jabar fase nga juróom fase nga juróom mend amul sens. app ko ba sens. li am solo mooy ku mën a toog ci ni nga bëgg. mën a toog toog ku mënul dem ku mënul toog ku mënul dem. demal am soor. maa ngi mel ni ko am fit te xoola. ab policier makkalaa boo xamante ni. <laughs> wallaahu taala anu jërëjëf Kya. macha allah jërëjëf.